Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. À Saint-Louis, l'Institut français a déroulé récemment plusieurs activités dans le cadre du festival intitulé Festi Gouneyi pour marquer la journée de l'environnement. Il s'agit du premier festival dédié aux enfants qui ont eu droit à divers spectacles et carnavals centrés sur les thématiques liées à l'environnement. Le but était de faire passer des messages à ses enfants à travers l'art, la culture et le spectacle. Une initiative en partenariat avec le Centre culturel Le Château, nous dit Yves Tendeng. Des ateliers, du spectacle, du théâtre et de la danse, le tout agrémenté par un carnaval qui a quitté Nartout, sillonnant ainsi le quartier nord de l'île Saint-Louis. La ville tricentenaire a vibré sous les couleurs du Festi Gounéi, le premier festival dédié aux enfants. Une initiative de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'environnement. Isabelle Boireau-Gruyer est la directrice déléguée de cet institut. C'est la première édition d'un festival jeune public s'appelle Fest Gounéi, qu'on a monté en lien avec le Centre culturel du Château qui développe beaucoup d'activités euh, d'abord de faire connaître un peu aux enfants l'art de la marionnette. On a eu aussi des spectacles autour du masque, du mime. Euh, ce sont des arts qui sont moins connus en fait, je pense, en tout cas à Saint-Louis. On connaît euh, le théâtre grâce au collectif. Et là, l'idée, c'était de présenter de nouvelles formes dans le cadre de la journée de l'environnement. Elle explique ici les différentes thématiques abordées par les troupes théâtrales lors de ce spectacle. qui a présenté Kirikou, et puis euh, la compagnie euh, Eluc sur un autre spectacle au Pays de l'Environnement qui euh, sensibilise sur les enfants à ces questions-là qui sont aujourd'hui fondamentales. Un accent particulier a été mis également sur la préservation de l'environnement, surtout à travers la pièce théâtrale intitulée Au Pays de l'Environnement. Parce que de plus en plus, les problématiques en fait environnementales sont là, présentes dans notre quotidien au Sénégal. il y a en ce moment une qui touche euh, surtout l'est du pays, je pense à Matam. Donc on a un dérèglement climatique qui est assez fort et qui concerne euh, aujourd'hui quasiment tous les pays au monde. Ce carnaval a été animé par une troupe de tambour-major de la place, accompagnée par la fanfare de Saint-Louis Gandiol Sénégal, sous le patronat du bienheureux Daniel Brotier, qui avait déjà une fanfare à Saint-Louis en Yves Et puis la galerie du 19e à Dakar, du juin au 14 juillet, une exposition haut en couleur qui regroupe plusieurs artistes et artisans des talents dans la confection et le travail fait autour du slogan Sunu Diggante ce qui nous lie. Le vernissage a eu lieu ce jeudi au musée Théodore Monod. Nous avons justement rencontré Khadija Badialo, l'une des artistes qui avait exposé il y a un an lors de la venue de 19e avec Chanel. Khadija Badialo travaille sur le grand boubou qu'elle a fini par décorer comme un tableau d'art en composant au finish des tableaux en broderie en patchwork sur un fond unique de tissu en y ajoutant parfois des accessoires. Avec sa marque l'artisane, elle renouvelle les fonctions du grand

fait, à la base, euh, ceux qui, je mettais les boubous de mon grand-père. Et euh, bon, ce que les gens trouvaient ringard, mais bon, je pense que juste la manière dont je l'utilisais, en utilisant des tissus qui sont modernes, mmh. euh, des tissus modernes, des, des, par exemple en mettant des patchs, des, des lapins, mmh. on va dire que ça a donné une autre dimension du boubou, ça l'a rendu contemporain. Mmh. Et je pense que peut-être le fait que les gens se moquaient, se moquaient de moi avant, un peu quand je mettais le boubou, mes cousines et tout, mhm. euh, c'est peut-être une révolution où je me dis, peut-être c'est un moyen moyen de faire que toute une génération va porter des boubous et va en être fière. Justement, vous êtes dans une même démarche de création, parce qu'au-delà de, de, la couture, il y a, y a, le patchwork, il y a euh, les accessoires. Oui. Alors, est-ce que vous êtes conscient de cette touche artistique que vous apportez à la couture Je, je vais pas avant, non. Aujourd'hui, oui. J'ai pas fait des études de mode, moi je suis juriste, et donc je suis entrée dedans par hasard, et c'est en entrant dedans par hasard, au fil des interviews, au fil des panels, que j'apprends en fait que ce que je fais a un impact en fait sur euh, les gens gens, mmh. que ça a un impact sur la transmission. Parce que je me rends compte que là, quand on me pose des questions et que genre je cherche un tailleur, genre sur la Cornélie, mmh. on me dit mais pourquoi tu cherches ça Genre ça n'existe plus. Mmh. Et c'est pour ça que là, par exemple, c'est, j'utilise la Cornélie, j'utilise le filigrane. Et c'est ça qui m'intéresse parce que la plupart des motifs, soit les motifs de, de mon grand-père, euh, les anciennes broderies, ou même des motifs que je peux créer, c'est guidé à la main, par une machine euh, où tu tapes et après en fait ça sort. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est, pour ça que je dis que c'est important de travailler avec le 19M. Mm-hmm. Parce que moi, quand quand j'étais à Paris, c'est là que j'ai découvert que le fait main était du luxe. Je suis allée en cours à la manufacture de Sèvres. Il a dit oui, euh, non, mais c'est du luxe parce que c'est fait main. Je lui ai dit non. Il me dit mais pourquoi Je lui ai dit mais donc dans ce cas, je suis née dans le luxe. Parce que ma, ma grand-mère, elle a un métier à 10 et demain chez elle. Ah. L'habit que je porte est d'Enkochuk, Guinée. Donc je me suis dit, aïe, c'est quoi ça Je comprenais pas. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu ma gifle culturelle parce mm. que je me rendais pas compte en fait de c'était quoi, c'était comment. Vous avez dit deux fois transmission. Ouais. Est-ce un combat pour vous justement donc pour cette cette euh, valeur transmission-là Ah, ça l'est devenu des... ah. <laughs> ça l'est devenu parce que je me suis rendu compte en fait que tout des wolof Njaay nee na soo xamul fi nga jógee da ngay dellu soo xamul fi nga jëm da ngay dellu fi nga jógee Donc je pense qu'à la fin de la journée, on va toujours retourner finir jogger. Quand tu peux voyager partout dans le monde, soo atterriré wala nga génn ci oto bi l'odeur de, de ton pays. Mm. loolu ça n'a pas de prix en fait. Et je pense que en essayant de retransmettre tout le lifestyle sénégalais, je me suis rendu compte de nos grands-mères nga yeewu fajar sa yaay def gowe wala sa maam def gowe. Et je me suis rendu compte dans la boutique que nit yi dañuy dugg ne la yow lii day xëy sama kër maam lii et je pense que je me suis rendu compte de l'importance de de la transmission de tout ce lifestyle sénégalais. les cette dimension, euh, patrimoine. cette dimension patrimoine et pour moi c'est ça le patrimoine immatériel mooy nga transmettre loo xam ne on ne peut pas le toucher forcément mhm. mais on peut le ressentir et donc pour moi c'est c'est ça que tu n'oublies pas parce que ça vient de ton cœur en fait et ça vient de ton enfance li nga lekk la li nga xeeñ la ak li nga li nga senti quoi. Qu'est-ce qui t'a apporté la collaboration avec 19M? Ah, ça m'a sorti de ma zone de confort. Moi, je ne suis pas, je me présente comme une artiste parce que moi j'ai fait les carreaux de, de ma boutique mais quand je dis euh, que je suis une artiste, je n'avais pas pas imaginé quand même cette dimension-là. Uh -huh. Parce qu'à la base, moi, je, je, fais des habits, des boubous cool, euh, des choses comme ça. Donc, j'ai pas, euh, j'ai pas forcément j'avais pas forcément ce, ce, côté où je devais faire une œuvre qui va transmettre des émotions parce que man su may def dara da ngay ñëw si boutique bi nga dugg nga gis karo yi nga ne lii sama kër maam la nga xeeñ cuuraay bi nga ne lii alors que là c'était une œuvre statique uh-huh. donc c'est me sortir de ma zone de confort et de réfléchir à li nga wax ni yëpp art culture transmission mm. et comment connecter tout ça. C'est la fin de votre journal de la culture merci de l'avoir suivi. dal leen nag jàmm ki seen xibaaru mbat yi dañu koy dooree ak ndar géej gi xam ne ne amoon nañ fa benn festival boo xam ne ñu ngi ko dippee woon festi gune yii ngir màggal bés bi ñu jagal lépp jëm ci wàllu alam bi lu ñu mel di festival bu njëkk ñeel xale yi ñu war a xam seen ak ak yelleef jaare ko ci ay foo yoo xam ne day tax ñu gën a xam naka lañu ñu war a mën a aaree alam bi yëngu-yëngu boobu lee ay xale yu bëri yu nekk ndar bokk nañ ci ci benn carnaval n noonu ci ndimbalu centre culturel le château nañ ci teelu Yves ay lël ay spectacle théâtre ak i fecc rax ci dolli benn caravane bu jóge Ndar tuut jaar ci quartier Lodo bu Île Saint-Louis daanaka Ndar xumboon na lool ci njëkkeelu festival bu nga xam ne ni ñoo ko jagleel gune yi te ñu duppee ko festi gune yi waa institut français bu ndar daal di ko tëral ci bi fi màggalu alam gi ci àdduna bi wërngal képp kii di Gabriel Sène moom la ñu dënk wàllum théâtre musique danse ak lépp lu jëm ci gune yi. tey jii dañoo organiser premier festival bi nga xamante ne dañ ko jagleel xale yi. voilà léegi nag def nañu tuuru école yi invité leen te gis naa ni ils sont parce que thème bu ñu développé cette année mooy environnement éveil des consciences ak esprit critique donc loolu la ñu jiital mais li si gën a ëpp moom mooy surtout environnement bi. donc gëm nañ ni que ni instant bi xale yi ñoom la ñu mën a yëkkati puus leen jox leen njëmtuwaay waxtaan ak ñoom ni wax leen environnement jigéen ñi dafa am solo ci ñëpp. que voilà ñoom daañu màggaleeg moom te gëm naa ne bu ñu demee seen kër yi ci seen école yi aussi daañ ko jëfee. ci noonee mu daal di ñu firi ponk yu nga xam ne ni troupe théâtrale yi jot nañ leen fësal ci biir spectacle bi. première activité bi ñu ngi ko defee centre culturel le château bi nekk Santhiouba donc euh, benn spectacle bi nga xamante ni peur de la couleur la la tudd donc éveil des consciences ak euh, Kirikou la Kirikou xam nañ ko su conte la bi nga xamante ni c'est un jeune vaillant xale bu am pas-pas xale bi nga xamante dafa judd rek intelligent moo génnee boppam ci biir ndey yaayam te moom moo euh, combattre ki nga xamante ni mooy Cannibale la sorcière. mbirum alam gi am ci nag pàcc bu yaa rawatina ci pièce théâtrale bii ñu duppee au pays de l' environnement. au pays de l' dafa nekk benn spectacle bi nga xamante ni jant la ndox euh, suuf ñoom ñooy waxtaan ci nit ñi li ñu leen di def. voilà ak euh, conséquence bu mu am également ci ci ñoom. di fàttali ne caravane bi daanaka benn groupe bu tambour major bu ndar ñoo ko daal di animé ci ndimbalu waa fanfare bi ñu duppee Saint-Louis Gandiol Sénégal bi nga xam ne ni ñoo ngi ko bàyyile kii di bienheureux Daniel Brottier nga xam ne ni sosoon na fii ci ndar benn fanfare ci atum 1908 ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendang Sud FM. jóge ci loolu wax ci exposition bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko dippee sunu diggante nara am diggante fukki fan ñeent ci weeru juin jàpp fukki fan ñeent ci weeru juillet fii ci ndakaaru ca musée Théodore Monod amoon nañu nag vernissage bi di maanaam ubbite bi ni ki démba foofalee exposition bi lay li ko tax a jóg moo di lëkkale ay artisan ak ñoo xam ne dañuy liggéey liggéeyu loxo ak waa galerie 19M ba nekk Paris exposition mi dippee ko sunu diggante sekkuni lii boole na artistes yu am solo yoo xam ne ñu ngi yëngu ci ay fànn yu bëri te ci wàllu ñaw ci wàllu perlage wàllu defar daal ak wàllu peinture ba ki sax wàllum broderie à la main fii ci ndakaaru jot nañu nag daja ak kenn ki ñoom ñu koy dippee Khadija Ba Diallo liggéeyam yëpp jëm ci wàllu grand boubou bi nga xam ne daf koy yeesalaat di ki def ay finition ay patchwork di ko booleeg ay tissu Khadija Ba Diallo moom di ñu xamal ne liggéeyam bile li ko tax a jug moo di yeesalaat ba noppi boolewaat ci xew xew tey nit ñi solee grand boubou méngale ko ak jamono am nañu ak moom waxtaan nañu ko teewlu. Khadija Ba Diallo ginnaaw nga ñëwaat alors yow ay grand boobu ngay def sa grand boobu bu la neexee nga sol nu la neex nga sol loolu mooy essence wu marque bi mhm. mooy nu la neex nga solee ko ak foo mun ci jógee mhm. pas mu nekk lu inconfortable moo tax ñuy utiliser tamit ay tissus moderne ay tissus yoo xamante ne ni que soo ko solee di nga si nekk à mhm. ba pare di nga ko mun tourner lu la neex nga sole ko bu xam ne dëpp dipi waaw nu la neex nga solee ko parce que pour man amul règle ak fu la neex nga solee ko c'est pas damay sol grand boobu pour dem xew dem liggéeyi pour dem vernissage pour dem fu nekk mhm. alors justement sa grand boobu yooyu noonu dafa jéggi léegi wàllum rek euh, sol yére rek dafa am dimension artistique mhm. ndaxte yow ñëwoo grand boobu rek teg mais rek si boole ay accessoire di def ay ay patchwork boo bu soree da nga yaakaar ne sax lii tableau d'art bu ñu ñu teg ci kaw grand boobu la mhm. alors est-ce que am nga ko boobu conscience yow carrément sa liggéey maa ngi door a am conscience bi mais bi ma koy def du woon jubluwu ma si woon loolu en fait dama ni dama doon def ay yére au début Euh, bi ma koy door a commencé d' ailleurs c' était juste benn collection euh, bu ma def ak Célie euh, mu woo ma ne ma non kaa ñu photo sa yére yi. ma ne ko lu ñuy photo sama yére nit yi dañ may moqué da nga bëgg rek genre ñu reetaan ma quoi et donc mu ne ma non nañ def affaire bu ndaw. ñu def ko ma gis nit yi mel ni genre loolu lañ doon xaar ba pare man dama doon sol mbubu il y a vingt ans ak Converse parce que mënu ma dox ci talon. Mhm. nit yi foog ni style la te c' est juste que mënu ma dox ci talon. Mhm. et donc loolu indi nga nekk di dox. ci voilà nit yi naan la présenté la yow ay eh, wuyul kii moo tax may sol mbubb ak converse ak lii ak lii après ma comprendre ni que lii dafa am importance ci suñu culture loolu ñun la daal suñu culture nekk sénégalais nekk africain mhm. et dañ ko war a assumer te ñun suñ ko assumer wul xaw ma kan moo koy assumer valeur transmission boobu noonu ak euh, fexe ba suñu yére yi di jéggi génération yi. di ko mun a réapproprier waat ci modernité bi. Mhm. sa combat la yow. waaw léegi sama combat la <laughs> avant rendre ma si woon compte c'est comme par exemple may utiliser saaku ceeb pour defar marakis ñu naan la waa danga am impact si environnement bi ma ni ko environnement de quoi en fait non dama gis saaku ceeb côté design bi laa doon gis mais mhm. si ngay rendre ni que action boo def en fait si lépp en fait dafa am ak dafa am lu muy def si si si àdduna bi. Mhm. dafa am lu muy def si écosystème bi lu ñu war a jël en compte la également. sa liggéey ak 19M la la yéen en tant que artiste. génn si sama zone de confort déjà ba pare euh, def œuvre boo xam ne ni ko dama war a transmettre li nga xam ne ni que loolu laay wax ni que moom mooy l'artisanat ba pare mu nekk loo xam ne ni que dafa taxaw nga gis ko nga war a ressentir sentir ni ah lii de fàttali dama grand serigne de Dakar ah man de am naa téere waaye te parce que su ma daan dox damay gis ay téere yu ñuul téere yu marron ma ne waa man ma war a tax rek et parce que man duma dox si journée te gisuma téere mhm. donc c'est ma ni xaaral ma détourné téere bi comme ni may détourné affaire yi rek. tout à fait ma moo andi lii waaw moo indi lii en tout fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi.